en fait amatuñu pour dañu tàggu ci quoi que ce mm-hmm. wala sax di wax ñun sénégalais yi ñoo leen fal pour que ñu leeral ñu ñi nga xam ne ñoo nekkul ci yoon ñu teg leen ci yoon. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañoo jot def loo xamante ne méngoowul ak li ak li yoon ñu jëm leen a euh, méngale wala sax jubbanti leen mm-hmm. loolu nag jarut. di tàggu wala di wax nit nañ def ñi nga xam ne nii ñoom ñoo euh, euh, euh, ñoom lañu tuumaal nañ ñu xool nu ñuy nañu nañu ñoom am nañu li nga xam ne nii mooy des outils nécessaires pour mun a xam ku ñu tuumaal ak ku ñu tuumaalul ndax liñ la tuumaal dëgg la wala du dëgg su boobaa nag ku ci nekk na la na justice def yoonam bu fekkee da cee am ñoo xamante dañ leen war a tëj mais c'est parce que loolu la ñu mérité moo tax bu fekkee dafa am ñoo xamante ne ni dañ leen a war a setal tudd nañ leen mais dañ leen a war a wax ne ñii bokkuñu ci aussi tamit ñu seetal leen mu bañ a doon loo xamante ne aussi tamit ay mbirum fayonte lay doon parce que des fois nga topp benn genre populisme boo xamante ne nii di tuumaal nit loo xamante ne nii nit kooku moom yoonam nekku ci loolu tamit il faut te bon ils ont sax les moyens pour vraiment déterminer ku ci nekk bu buñ la li ñu la war a topp naka lañ lay toppee ba yow nga mën a rendre compte li nga rendre compte loolu jarul a euh, chaque fois di ko euh, wax nit ñi wala xëy na peut-être est-ce que du pour dalal xelu nit ñi gi demee noonu parce que aussi tamit gars yi euh, dëkk dëkk bi dafa de jamono gi. Mm-hmm. les gens les gens nit du loolu lañu soxla de pour dalal xel les gens sont fatigués. aussi xamul luy dalal xelu nit ñi fi ñu toll nii. pas naa jàpp diw ak diw ak diw tëj leen noonu loolu def ko.